salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen nuyuwaat di leen dalal ci suñu jataay bi ñu jagleel eh, jàng français ci wolof eh, tey nag eh, comme nañ koy defee ay bis yu ne ñëwaat rek ci li nga xam ne moom mooy lecture muy liir jàng maanaam tey li ñuy jël li ñuy liir moom mooy leerti ñaar yi ñaar yi ñu bind bind ñu xonq ñi suñu gram muy on o ak n ak on o ak m ñaar yi naka lañ leen di jànge loolu mooy sunu bindub tey li ñuy njëkk a def dañuy joxe ay exemple maanaam ay misaal exemple yooyee moo ngi nii toujours dañuy bind lettre bi nga xam ne moom lañ bëgg a xam naka lañ koy prononcer son bi mbind mu xonq pour nga xàmmee ko fii dañoo am bon jour gis ngeen fii on leñ liir fii ñu am panta pantalon pantalon mooy ab tubéy fii ñu am leçon gis ngeen ko ba léegi on bi on fii ñu am façon on ñi ñëw fii ci suuf am fii tom mbe dégg ngeen li ñuy liir mooy ton tom mbe tombe fii ñu am bombu dégg ngeen ba léegi son on fii tamit ñu am pompu on leer na pompu fi ñu am tamit combat kon da ngay dégg kon dangay gis ne fii fii am nañ on boo xam ne on lañ ko bindee mooy ci kaw fii fii ci suuf ñu am on boo xam ne nii om lañ ko bindee léegi nag naka lañuy def ba ràññeetlee ñaar yëpp on lañ leen di liire waaye naka lañuy def ba xam ne fii on on lañ fi bind feneen fa ca des on on lañ fay bind loolu mooy jataayub tey bi balaa ñoo jàll rek ñu xoolaat bu baax baat yi buñ xoolee baat yi ci suuf li mel nii tombé dañu gis ne on bi lettre bi nga xam ne moo ci topp mooy lettre bi ñu bind mbind verbe mi B la lettre B ñu ñëwaat fii xool bombu lettre bi nga xam ne moom lañ bind mbind mu mbind mu verbe bi bi ci topp maanaam ci m bi B la fii ñu am pompe tamit buñ xoolee lettre bii di nga xam ne moo topp ci on gi P la moom lañ bind bind mu vert nii couleur bu vert dernière baat bi mooy baat bii di combat suñ xoolee koŋ li topp ci M bi B moom lañ bind bind mu bind mu vert mu mel ni kon laaj day taxaw lan moo waral ginnaaw baat yi nii ginnaaw lettre yi muy B ak M B ak P ak M lu waral ñuy bind toujours OM bi lu tax ñu koy bindee OM te bindewuñ ko OON kon loolu mooy sunu jetaayu tey règle bi mi ngi ñëw pour wax ñi lan moo waral fii ñu bind OM di ko liiree tamit ñu bind di ko liiree on bonjour bonjour ON lañ bind muy on gu leer nañ ñi fii tombé ñu bind o m ba noppi di ko liiree tamit on lu waral loole loole mooy mooy jataay bi mu ngi nii ñu ko on lañ liir fii fii tamit on alors que seen bindin wutee na lu waral loolee mooy lii lii mooy régle bi ñuy xamal loole règle bi daane devant M, B, P. On écrit M au lieu de N, bon bonbon. luy loolu nee na ginnaaw ci kanamu ci kanamu devant ci kanamu lettre bii di M ak lettre bii di B ak lettre bii di P ci seen kanam buñ bëggee am son boo xam ne on lay doon boobaa dañuy bind dañuy on écrit dañuy bind m maanaam dañuy bind o ak m au lieu de n bañ bind ci place bi ñu waroon bind o n gi nga xam ne moom mooy cosaan la dañuy bind o m ndax ci ginnaaw lettre yi yi nga xam ne moo nekk nii ci kaw mu ñett loolu koy loolu mooy li waral euh, ñu bind o m maanaam ginnaaw ñetti lettre yi buñ bëggee am son on o ak m la boole o ak ak m la ñuy la boole ba des nag suuf ba des baat bi nga xam ne mooy bon bon gis nañ ne fii bon gis nañ ne on lañ ko bindee alors que mu ngi nekk ci kanamu lettre bii di b kon baat bii bokkul ci mais bu dul baat bii buñ bëggee am on te fekk ne lettre ba nga xam ne moo topp ci ginnaaw on gi ñett la ci lettre yi muy m b wala p boobaa la ñuy bind mooy mooy o mooy o ak m ginnaaw ñetti lettre yii suñ bëggee am son wu on la ñuy bind moom mooy o ak ak m o ak ak m loole nag ñi seppee ci baat bi nga xam ne moom mooy bonbon baat bi lañ ci dindi donte am na yeneen baat waaye nañ jàpp baat bii rek lañ ci lañ ci seppi ñu ñëw ci exercice maanaam def entrainement exercice bi li mu wax pour ñu xam ba xam liñ jàng leer na wala leerul dafa ne remplissez les points suivants par un ou on dafa ne la lii ay baat la ay jumla yuy ñëw la ay phrase yuy ñëw la yoo xam dañuy waajal ñëw phrase yooye am na foo xam ne ay point lañ fa def maanaam ay tomb tomb yooyee neen la nga bind fa on mu nekk o ak n xam ne on nga fay teg wala nga def fa on boo xam ne o ak m lay doon bu fekkee ne règle bi leer na di nga xam fan lañ war a teg on xam ne o m lay doon ak on boo xam ne on lay doon baat yaa ngi baat bi ci njëkk mooy mouton mouton moo nekk nii ci photo bi ñuy gis muy am kuy baat bi ci ñaareel bi mooy savon muy saabu ñetteel bi mooy avion mi ngi nii avion ban o nga fiy def o avec n wala o avec m fii concombre concombre moo nekk nii ak gàncax la goo xam ne nii eh, ci eh, li ñu jëfandikoo lay bokk concombre fii ñu am fii biberon biberon mooy loolu la ñuy jox jox xale yi léeg fii ñu am montre fii ñu am salon fii ñu am mondu yii ay baat la yoo xam ne dafa manqué benn ci ñaari lettre yi ñu leen ci war a dugal on bi wala on bi ban nag lan ci war a def pose vidéo bi nga daal di jéem jéemal sa boppu correction bi ñu may la ñetti simili daal di ñëw ci lii di correction bi correction baa ngi nii baat bu njëkk bi mouton gis ngeen ko on savon on avion on concombre gis ngeen kon on bu njëkk bii mu nekk on combre on bu ñaareel bi nekk mo lu waral lool parce que lettre bi ci topp ci ginnaaw on bi b la te waxoon nañ ne bu fekkee lettre bu topp ci ginnaaw on bi b la boobaa mo la ñuy bindee on bi fii ñu am tamit biberon fii ñu am montre gis ngeen ko comme b nekkul fi p nekkul fi m nekkul toujours on rek la ñuy bind fii ñu am salon fii ñu am monde kon defe naa ne loole leer na ñu ñëw ci jox la ci ay phrase yoo xam ni nii day làmboo ak bindu tey bi kii daa ñëw ne dañuy liir texte bi ba noppi daal di koy li nga xam ne mooy firi bonjour papa j'ai besoin de vos conseils pour mon prochain combat Bien entendu, d'abord, je vous conseille de ne pas attendre la satisfaction de tout le monde et en plus respecte la façon dont tu traites ton adversaire. Merci prenez ce mouton et priez pour nous. Merci, mon fils. Bonne chance. loolee mooy li aju ci njàngin mi ñu ñëw nag ci firi mi ko lan mooy li wax ji wundu kii daa ñëw ci baayam papam mooy baay ñëw ne ko bonjour papa nuyu naa la yow sama baay wala naka suba gi yow sama baay j'ai besoin de vos de vos conseil dama soxla say say conseil maanaam say euh, conseil say orientation pour mon prochain combat ngir sama combat bi waajal ñëw peut-être mbër la wala lu mu doon ne ko damaa soxla nga jox ma ay conseil pour sama prochain combat bii ñëw waa ji paa bi daal di tontu ndaa ne ko bien entendu dégg naa la d'abord d'abord mooy njëkk je conseil conseille de ne pas attendre maa ngi lay conseil nga ñàkk a xaar la satisfaction ci ngërmande de tout le monde ngërmandel ñëpp maa ngi lay njëkk a conseil ne bul xaar mukk di am ngërmandel ñëpp parce que loolu mënta nekk teg ca ne et maa ngi ci yokku tamit et en plus ma yokk ci ne respecter la façon dont na nga respecter ni nga xam ne nii moom ngay kii te traite façon bi nga xam ne moom ngay traiter ton adversaire kii sa adversaire adversaire mooy ki ngay jàkkaar lool ci combat boobee kon bul bàyyi xel ne dinga nga a am ngërmandel ñëpp munoo def dëkk ci lu neex ñëpp waaye tamit ki nga xam ne moom mooy sa adversaire fexeel ba na nga koy traité mu nekk lu jaar yoon maanaam na nga ko respecté au maximum bi mu waxee loolu doom ji daal di ne merci papa jaajëf sama baay jërëjëf donc prenez ce mouton jëlal xar mi kuy mi et priez pour nous te nga ñaanal ñu priez te nga ñaanal ñu priez pour nous nga ñaanal ñu papa ji daal di tontu ne ko merci mon fils jaajëf yow sama doom ji sant naa la gërëm la kon bonne chance ñoo ngi lay ñaanal mu nekk yoonu jàmm ak salaam maanaam bëree bi nga am ci chance daal di mën a gañee comme ni nga ko bëggee kon lii buñ xoolee gis nañu on yi nañ ko bindee li ci on le bind nañ ko nga xool ko bu baax le fan lañuy bindee o avec m ak o on avec n buñ xoolee am na baat boo xam ne nii xëy na mu ngi nekk on te souligné ñëwuñu ko boo xoolee texte bi soo gisee fu am on te souligné wu ko maanaam binduñu ko mbind mu xonq nga daal di wax ne fii am na on waroon nañ ko mbind mbind mu xonq te binduñu ko ko loolee mooy sas wiñ la teg donc lii moo doon sunu jataayub tey di leen sant di leen gërëm di leen jox dig daje ba ay yeneen bis yi di ñëw xanaa rek di la wax ne bu fekkee ne lii mooy première fois ngay daal di ñëw ci chaîne bi ñoo ngi leen jaan nga daal di abonné te partager euh, vidéo bi ci képp ko yaakaar ne lii dina ko amal njëriñ si noonee ci ngay mën di amee à chaque fois sunuy vidéo si noonee tamit ci nga mën a jàppale lii di chaîne bi ba képp koo xam ne ni bëgg na cee mën a jot mu di mu daal di ci mën a jot comme ni mu ko ni mu ko bëggee ñoo ngi leen jox dig daje ba ay yeneen bis yi di ñëw salaamualeykum wa rahmatullah